micro bi daa fay dañ bañ ne duñu fi jógee donc association bi xaw ma nan la nar a demee finalement mais on est là en tout cas pour jëfleen naa ko oui c'est dans le vert gis ngeen gazé nañ fi nga xam ne si nañ leen sànnee des grenades lacrymogènes Abass Abass Fall ak Guy Marius Sagna gis nga ci lañ leen sànnee ci ñun la ko visé moytu leen ndax ci ñun lañu ko visé pour കാര്യമായിട്ട് soxna ma Abdé Abdé wala nañ leen oh. sa eh Seydou taxul taxul Seydou doo tafu buñ la dóoree foofu nag <coughs> da ngay tafu da tafu ñoo bokk ci réew mi <coughs> kon du leen dàq ñu di day fay rek. Massa. C'est bon. Euh, déjà li may wax mooy aujourd'hui mënoo ñëw jël nit au nom du certaine loi génn ay code ba pare nga bëgg ko séquestrer kon dama bëgg xam nañ ma ko génneel rek ban loi moo nekk nit ki kenn amul droit dem seeti ko te amul droit aussi circuler comme tout citoyen man c'est ça mon souci en fait et du coup on a parlé de la caravane de la liberté mais ce n'est qu'un début parce que aujourd'hui je pense qu'il n'y aura point de liberté sans une justice boo xamante ne day tëddee njaaxaan naay loolu dama bëgg mu leer parce que ay kilifa ñoo fi nekk on a des bouches à nourrir on a des chats à fouetter on a des choses importantes à gérer mais lépp nañ bàyyi parce que dafa am un citoyen boo xamante ne on croit en son projet raison pour laquelle aujourd'hui ñu ñëw nag ngir taxaw vraiment ñaawlu sonal gi sonal monsieur Ousmane Sonko dañu waxante dëgg ndax ñun ñëpp wala peut-être la majeure part aujourd'hui on ne dit même plus non au troisième mandat mais on nous parle de troisième candidature kon Sénégal waruñu dellu ginnaaw kenn waruñu delloo ñun la jeunesse ci jamonoy maam Sénégal dafa war a avancer parce que lii yàlla na na journaliste yëpp ñu ñu ñu daje seen biir xool ndax lii jaadu na on parle de violence mais dafa mel ne nag tey kumba am ndey la ak kumba amul ndey ju violence bi benn côté nañ koy waxee waaye nag dóor fayu ah dóor fayu ku mën a baale na nga baale mais dóor fayu benn instant te méjum kanam borom moo koy fajal boppam moo koy boppam kon liñ fi nekk tey c'est juste pour apporter suñu soutien à monsieur El Hadj micro bi fay na de portable daa guddi